ñëwoon nag ci turu madame la ministre de l'économie numérique et télécommunication di porte parole gouvernement bi madame Ndeye Tické Ndiaye Diop sëriñ bi moo ñu fi yebaloon ñu ànd nag une forte délégation ànd ak ki nga xam ne mooy sunu doyen alxaaji Souleymane Ndiaye Ibrahima mi ngi nii toog ànd ak ki nga xam mooy alxaaji Cheikh Kane Cheikh mu ngi nii toog ànd ak ki nga xam mooy Basirou Sey sëy ma nga ne toog nekk kenn ci kër alxaaji Ibrahima Diouf ma nga ne toog ànd ak ki nga xam ne mooy Vieux seen mu ngi nii toog ànd ak ki nga xam ne Mamadou Ndiaye ma nga ne toog di responsable APR. ànd nag ak sunu yaay bopp xajja sine bu maar di kenn ci kër gi moom bu duggee ci kër gi kenn du ko présenté muy kenn nag ci madame la ministre yàgg lool nekk sëram nekk conseiller météo ak ki nga xamante ne mooy Adja Amsatou Diop ak ki nga xam ne mooy Asiyatou ak ki nga xam ne mooy madame Diouf di tax ma mujjee nag ki may mujjee. moom de kenn ci madame le ministre muy Adja Maram Kassé di chef de cabinet madame le ministre Adja ne Dika Ndiaye Diop moo toog ne attaché de cabinet bi wuy jërëm dafa bàññeeku woon tey la ñeent fukki bi ñu def mbélaas moo tax ñëw ak man mi nga xamante ni mooy yor chargé des affaires religieuses muy Khalifa Ndiaye bokk ci kër gi ñun ñii ñoo jiite délégation ah di wax nag sëriñ bi ki nga xam ne moo ñu yónni muy doom ci kër gi di taalibe ci kër di madame le ministre Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop di doomu Thiès président Macky Sall jël ko taf ko ci wetam yaakaar ko lool te dañuy wax ka nga wóolu di kam la booleel soo ko xeebee def nga ay ñu ni ka nga wóolu kamu la booleel boo ko xeebee da yomb a yëy président nag wóolu ko waaye moom mu jël nag lii ma wóolu leen lool te ñu nangul ko. mu ne ñu ne ngeen ma demal ci Cheikh Alxaaj mu niir ak mboolem njabootu Alaaji Ahmad Baro ne ko maa ngi koy ndokkeel si ci gàmmu ndax moom ku ne xam na yitteem fii ci biir njabootu Alaaji Ahmad Njigéen du denc saa su nekk mu may yebal wala muy yebal keneen wala muy yónni Adja Seyni bu maar ay wax yoo xamante ne wax yu la yoo xamante ne nii dafa jig ci làmmiñ ci dënn jëm si njaboot gi kon bu yàlla dogalee tey jii si Alaaji Ousseynou yow yaakaar naa ne bis bu nekk. mboolem teraanga bu ma fi yebal yow yaa ngi recevoir ma teg ko ci salon mu boole koo xeeb loolu ndax daf ma naan mboolem njabootu Alaaji Axmat Njigéen lépp lu ñu xew na xalifa sama ko waxul baalu ma la àq keroog juróom génnee àdduna mu doon bisu gàmmu la muy xat-xat bàyyi moo def délégation bi gi jàllee ñëw ziyaaral xalifa bi ziyaaraan mboolem njabootu Alaaji kon xalifa bi yàlla fi yàlla téwél ministre nag ni ñu ah dafa ñëwoon doon ziyaare xalifa bi ak njaboot bi yëpp na mu ko daan defe saa su nekk moom lu ko defee tey jii di ñaan yàlla ñaanal ko réew mi yàlla def fi jàmm mbas mi fi nekk yàlla jëli ko fi di ñaan ñaanal président yàlla dafa ko jàmm defal ko sutura waaye moom dafa wax nañ ñaanal président ñaanal réew mi waaye ñun ñi mu àndal ñu ñooy jël acte toujours dinañu ko ñaanal moom ndax boo xamante ni jiit bu baax la njiit la koo xamante ne mooy ministre boo xam ni fàttewul ñooñam fàttewul waa Thiès nit da bu fekkee dafa mel noonu jaadu na ñun ñi fi nekk ñu wax ko ndax Seydi El Hadji Malick bu ñu baaxee yi ndax mbokk yaa ko wax ñun ñi nga xam te ñooy ay bokkam dëkk ci Thiès surtout ñii toog Zeynab maam mi rek Adja Zeynab boo ko génnee Thiès ak Thiès am lu bari lu mu perte bu demee ba xool ko ni ko yaama doy am na loo xam te ni ma nga ca moom kon bi ñuy ñaan ngeen ñaanal ko yàlla doom yi ko président wóolu ba teg ko fi yàlla defal ko ndam defal ko ci sutura yàlla bu mu fi gis dara lu muy ragal lii daal moo nekkoon kàddu yi nu ñu nag su ngeen yéegee ci sëriñ na ngeen ma ko di tegal ma ko sama ziyaara ci gàmm nga xam ne gàmm gi sama gàmm la wax dëgg yàlla incha allah ba ca kanam rawati bët te kër gi incha allah du ma leen fàtte mukk ndax xam na ne fàtte wu ko ci wàllu ñaan fàtte wu ci wàllu jàppale seexal bàyyi alaaj mu ñun ba ma fi mujjee ba njëriñ di jàkk ji daf ma ngi nekkoon sama doom la maa ngi koy suivre saa su nekk heure bu defee yàlla moo def heure waaye bu defee photo bi non ko wax ko te nee ko maa ngi koy suivre ci gis ma lu mu def te loolu dal na xel day dal nañ xelu njaboot ñun ñii kon bàyyi laa jamet ñuy gën sàkku ngeen ñaanal ñu ko yàlla defal ko ndam defal ko sutura te bu mu gis dara lu mu tiit lu muy ragal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh muy njëkk lu ëllëg. nee na muy njëkk lu ëllëg. teraangay tey. muy teraangay tey. ginnaaw loolu. nee na ginnaaw loolu. xanaa kay dañoo xamul lu ñuy def. nee na moom kay dafa xamul nu muy def. waaye yow. nee na man rek. mais mënoon nga ñoo tontu suñu wax. nee na mënoon naa ñoo tontu. li nga wax. nee na li ma wax. jóge ci soxna Ndeye. jóge ci madame mi Sadia Ndeye ci Kën Ndiaye jóg. alaaji Ousseynou bu ko neexoon na la tontul ma leen. nee na Baye Alaaji Ousseynou bu ko neexoon ni ma tontul ma leen. waaw boo tontoo. ñun su boobaa su ma tontoo. ku xam kër gi. ku xam kër gi. te xam la te xam ma. xam ni nee na xam ni. tontu na tontu na. lu jóge ci alaaji bi. lu jóge ci alaaji mu nii. waaye ci pourquoi lu xew nii. nee na wolof dafa ci pourquoi lan moo xew nii. lu tax lii demee nii. lan moo tax lii demee nii demee nii. kon il faut que lay am ci. ñu ne il faut lay am ci. su dul woon loolu. ñu ne su dul woon loolu. dañ la xalifa tontu leen. nu nu ñaan. ñu def ñu daal di yeewi. gannaaw loolu. nee na mi ngi nuyu ñëpp. di sant ñëpp. nee na mi ngi sant ñëpp. kenn ku ne. ci ne. ak santam. ak wàccukaay bi nga am. am. lu yàlla defal la nee na yàlla mii defal la ko ñu nga cay bokk nee na ña nga cay bokk di la ca fekk dala ca fekk si di la ko jox di la ko jox ndax lan nee ndax lan nangu dogalu yàlla nee na nangu dogalu yàlla li muy njëkkee ci Ousmane Cheikh Ousmane bi Brin nee na dafay njëkk ci alxaaji Souleymane Ndiaye Brin Souleymane Ndiaye Brin alxaaji Souleymane Ndiaye Brin ndax li la dal nee na li ma dal moo ko dal nee na moo dal xaaji Souleymane alaaji Muniru nee na Cheikh alxaaji Muniru bokk na ci ñi la yàpp nee na bokk na ci man ñi ma yàpp waaye alaaji Muniru nee na Cheikh Al Hadj bokk na ci bokk na ci. ñu ko yar ñu yar sax Souleymane Ndiaye. wax léegi mi ngi may bi nga koy déey. kilifaam kilifaam. moom El Hadj Munir. moom Cheikh Al Hadj kenn lañu woon na moom kenn lañu woon ak kilifaam. tafsirkat nag ki nga xamante ne mooy Cheikh Al Hadj Cheikh kan nag moom du ko fii. nee na fii. ak fële. ak fële. yenn la. nee ak jàkka yu loolu genn kër lañ. ginnaaw loolu. nee na ginnaaw loolu. danga ne nañu ñaanal président. nee na dama ni ko nañu ñaanal président madame la ministre nee na nañu ñaanal président de la république. ñaanal réew mi. ñaanal réew mi. danañ ko def. danañ ko def. waaye moom. nee na moom waaye madame la ministre. moo ñaanal boppam. waaye moom moo ñaanal boppam. ñun ci dëkk bi lañ dëkk. ñoom ci dëkk bi noonu dëkk. gàmmu gii. nee na gàmmu gii. bu ci yàlla yóbbu alxamis. bu ñu ci yàlla yóbbu alxamis. 1886 la. 1886 la ñu dooroon gàmmu gi. kenn ci nit ñi. nee na kenn ci nii ñi. fekkewu ko fekkewu ko. muy dox ba tey. nee na muy dox ba tey. kon bu ñëwul woon. nee na bu ma dem ministre ñëwul woon. ak bu ñëwee. ak bu ñëwee. dees na gàmm. dees na waaye moom. waaye moom ma dem ministre. ñëwam ci kër gi. ñëwam ci kër gi. du gàmm gi. nee du gàmm gi. dafa am loo xam ne. mais dafa am loolu xam ne. ñu kàtt xel ni man. nee na mbir bu gàttee xel ni man nii. dañ cee wax. dañu cay wax. 14 août. nee na le la sunu baay génnoon àdduna. la seen baay El Hadj jigéen Ndiéguène génnoon àdduna. radiyallahu taala anhu. bu 14 nee na bu 14 août ñëwee. bu nee na bu ne. dañuy dajaloo ci penc ma. ñoom dañuy dajaloo ci penc ma. ñaanal ko. ñaanal ba El Hadj Ahmed Ndiéguène. ndey tike rek nag. nee na madame la ministre ndey tike kese. la ñu gis. la ñu gis. benn ñaanam. benn ñaanam. mu solu. mu solu. muuru. muuru. toog ca biir perong ba. toog ca biir perong ba. kaamil yi mat. ba kaamil yi mat. wasifa yi mat. ñaan yi mat. ñaan yi mat. mu soog a dem. mu soog dem. bu ko fàttee. nee na madame la ko fàttee. wala mu néewal ko. wala mu néewal ko. ñun xam na. ñoom dañuy xam na. du ñu ko fàttee. du ñu ko fàttee. te néewalul. te néewalul ko. communication la. nee na communication. da koy waar. dafa yéeme de. koo koy dénk. nee na koo koy dénk. da nga koy wóolu. da nga koy wóolu. kóolute googu. nee na kóolute googu. da ko yàlla saxal. yàlla na ko yàlla saxal. ci digganteem. ci digganteem. ak kilifa réew mi. ak kilifa réew mi. ak ñi mu àndal ñëpp. ak ñi mu àndal ñëpp. Euh, sëriñ bi dafa wax ni moo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu moo ngi leen di tatagal di leen dalal di leen ziyaara. di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla di sàkku ngeen ñaanal ko yàlla mu wax ni nag yàlla su suñu boroom mu baax mi moo dogal eh, rakkam yu tedd yi wuutu ko ci jotaay bi jël ay kàddoom yëpp muy toog di déglu ñu jotalal ko te lépp di yiw lépp di tuyaaba mel na ni moo tàmpane kàddu yi fi yëkkati jëmale ko ci soxna si muy Adja Ndeye Tické Ndiaye ak kilifa yi mu yabal ñu ñëw ci jotaay bi mu ne li ci des nag yàlla dogal na ay taalibe Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu ñoo fi nekk ay taalibe maam Serigne Touba radiallahu anhu ñoo fi nekk yàlla dogal maam Serigne Touba ci boppam ñëw ba teew ci sunu jotaay bi mu ne moom Serigne Muniru jël na li des ci kàddoom yii gannaaw li rakkam yi wax ba mu ko mottalee dëggal ko tamponé ko ànd ci lool mu ne li ci des ci kàddu gi jël na ko jox ko sëñ Abdou Lahad Baara Mbàkke lii nga xam ni tabaarakallaahu njabootu maam Serigne Touba la mu ñëw ci kër maam Serigne Touba fekk fi ay waajuram fekk fi ay magam fekk fi ay rakkam fekk fi ay mbokkam fekk fi léppam mu ne moom la ñuy jox kàddu gi incha allahu rabbi mu waxtaan ak ñi fi nekk mottali ay kàddu yi bu àggalee ñu ñaan incha allahu rabbi nee na mu jël nuyóom nag dellu ko tegaat ci li ko Cheikh Alhaaj Mouhamadul Munir nee na nuyóom bi tax mu jóg sax yëg seegul nee na lii dafa di kàddu sëriñ bi nee na mooy di teraanga nee na nit nag du maye lu mu amut nee na ci jamono ji nee na ñi ci maye daraja néew nañu ñu ne gàngu naay boo tegal nit ñu day wax ñu nañu ko yokk mu gën a kawe waaye Cheikh Hadj Mouhamadul Mounir moom defoo loolu ñu xam nañu fan a jóge ak fii du ñaari kër génn kër la muy kër maam El Hadj Ahmad Boro kër maam El Hadj Ahmad kër doon kër maam Cheikhul Khadim nee na lii nee xeeb na ko lool de waaye mbëri na ca yàlla de. neen ndax moom dee rëy na ca moom. nga des na fi te yàlla li mu bind lépp. ne nit moo ko ci gënal. nee na pur nit ñooy. yéen ci yàlla Muhammad moo ko ci gënal sallallahu alayhi wa sallam. nee ku ñu bind rek moom moo tax. nee na Cheikh Mouhamadul Mounir Serigne bi. nee na ñu ngi lay delloo njukkal. nee na ñu ngi lay ñaanal yàlla. ñu ne délégation bi nga xam ne mooy ministre Yàlla yi Dikka Ndiaye Diop yabal ñaan bi neen mi ngi leen di nuyu turu Cheikh Al Hadj Mounir nee li ñuy fi wax lépp ci ministre bi leen yabal mi madame la ministre lay dikkee nee na ci jëfam yu baax nee ci jëfam yu nëbbu nee dafay wane ni Dikka Ndiaye daal nit ku baax ne dafa am post yoo xam ne. ne responsabilité ba fa nekk. ne nit du fa kenn du fa teg mukk. ku yàlla dul jàppale. nee na am na bërëb yoo xam ne. ku yàlla dul jàppale doo fa dem doo fa yónnee. nee na te doo fa jëf. nee na ñoom day xamuñu ko. nee na kàddu sëriñ bi rek la ñuy waxee. nee na waaye nag citoyen nee nañ de bëgg dëkk ci réew mi. nee bokk ci réew mi. nee ñi ngi dem ci événement yi. ñoo ngi dajeeg moom gàmmu Tiwaawan. ñu ngi dajeeg madame ministre yeneen ak yeneen. nee na kon xam nañu ko. ci koo xam day nangoo liggéey. ca kaw liggéey. nee kon. nee na buñ Cheikh Alhaji mu ñëw di leen seereloo ci madame le ministre lay Dikka Ndiaye na mën nañ ko de nee na gis nañu bu mu jëf ko nee na wa ma na illa bi ma alimna nee na bu leen sëriñ bi waxloo woon ci moom te xamuñ ci moom la may wax nee dañu koy nuyu rek nuyu ñamu yebal sant leen nee na xam ne nee na ma doon mis nañ ci ka jaay jëf jëf ji muy jëf ci Cheikh Al Hadj Mounir nee di ko jëf ci kër gi ak rajo Fatbara gii nee na ci kilifa yi ne li madame la ministre dëkk nee na ca la njëkke nee na boo ñëwee nee di indi jëf di indi yiw di indi teraanga dajeeg njabootu Serigne Touba. dajeeg njabootu maam Cheikhul Khadim. te ñu bokk tànt yi ñuy dox. te wóor na ko ni. am na geneen njaboot bu fi jiitu. te bu ma te bu ñu demee. te bu ñu demee. dana am geneen njaboot bu ñëw. nee na loolu dong. nee na doy na firnde. doy na sëkk. nee na kon jërë ngeen jëf. sëriñ bi mi ngi ñaanal madame ministre ci ka jaay yàlla na ko ma yàlla may réussir ci li ñu ko dénk nee na sàmmal ko may ko borom réew mi nga xam ne moom moo ko wóolu dénk ko nee na ñaan gi nee na lépp mi ngi ci loxo si alxaaj mu niir nee na wolof Njaay dafa naan bu ñu la defalee teraanga bu ñu la ko joxee nga delloo ko nee da nga koo nar da fay mu dellu wax ni kenn du mayeloo amut nee na Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mounir mii nee def na lu jafe nee na ñoom ay doom la ñuy maase ñaar moom ak seeni kilifa ñoom. du ñu ñaar kenn lañu. wax na ko fi. nga ne wax na ko fi. waxaat ko fi. kon bu ñu ñëwee. nee na bu ñu ñëwee. rakkam yi toog. nee na rakkam yi toog. nee la wax doy sëkk. ay doomam to la ñu wax doy sëkk. nee kii. nee na El Hadj Ibrahima Ndiéguène barki dem ñoo nekkoon màkk. muy seexu màkkaam. nee mu nekk ba jëmmi seexal xaaj Mouhamadul Munir. nee na présenté la ko. nee na mat ko jikkoom. nee na jikkoom. ci ci lañ ànde woon ca Makka. ca la ñu ànde woon dem Makka. waaye taxul sax ma xam ne fii la jógee. waaye taxul sax ma xamoon ni fii njabootu Alaaji Axmat Awa la jógee. waaye ba ma xamee ni fii la jógee. nee na amul mbett. nee na loolu mooy jotaay bi tey. nee na tabe yomb na de. làmb poche joxe. nee na yomb na. waaye yaa yaay diw. waaye yaay diw. nga ne du man nga ne du man diw. yow moomee yaa yow moomee ka nga joxoon kon sëriñ bi jërëjëf. sëriñ bi di dem ci géej gi boobu fekk na mu am lante ak maamam te defe nañ ni bu ñu juumul 1895 la demoon ci liggéey bi loolu ak ren day doon defe naa ni téeméeri ak ak fanweer bu ma juumul. téeméer ak fanweer xam ne nag la ko jiitu fekkoon na diggante yi ba seede yi ci dox xaritoo gi ci dox mbokkoo gi ci yàlla dox ci yëpp ba tey jii yàlla indi la mu ne mënuñu lu dul li nga fi am sa maam am ko fi say wayjur am ko fi rek ñu jox la ko mu ne tam li nga xam ni moom la lay seedeel mooy sa tànk yii ak sa kàddu yu yiw yii ak sa teraande yii mu ne sa sa wu tedd wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu ne bërki démb yónnee na fi teraanga gëléem ak tabarakallahu teraanga ñëw euh, jox ko teg ko ci loxoom mu nga kon moom moo ko indi woon euh, mu ne moom mii moo ko yónnee mu ne agsi na teg nañ ko ci loxoom ba mu nga ca fañ ko daan yóbbu ca gétt bu mag mu ne mu ngi ñaan ci yàlla waaw waa ji dafa ki ko indi dafa guddee fekk ñëpp fatu mu ne njaboot gi la fi fekk Cheikh Habib moom moo ko dalal ba ñu yóbbu ko fañ ko waroon yóbbu ne kon lépp ak si na yàlla na yàlla dolli jàmm ak sutura barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam